jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ginnaaw ba la ñu jógee fële nga xamante ni mooy daarul Xuddoos ñëw fii ci daaru Tanzir fii ci kër Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci ziar bi nga xamante ni daara Mafatihul Bichri mi ngi koy amal at mu yàlla sàkk ren ji nag gis ngeen nii ñu jàpp ko tey ji fenn fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ay membre ma Mafatihul Bichri bàyyi ko fa ñëw fii ci Touba fii ci Daaru Tanzil ngir dundal fi ziar bi li nga xamante ni mooy alquranul karim ak xasida gi nga xamante ni maanaam mafatihul bichri ku leen xam rek xam ne ci njàng moo xamante ni njàng mu la njàng mu dëppook li nga xamante ni mooy cosaan waaye macha allah ñu taxaw nag ak Serigne Mamour Diop mu yor cellule bi nga xamante ni mooy cellule communication kuy ziar bi ñi nga xamante ni moom la demee ku fi teew rek li ngay gis ne communication am nañ ci waaru woo xamante ni bay nañ ko ci bu baax a baax a baax a baax niki noonu gis nañ ne yaatu na yaatu goo xamante ni maanaam fenn fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew gis nañ ay nit bàyyi ko fa ñëw ci li nga xamante ni mooy ziar bi waaye ñi nga xamante ni mënuñoo ñëw ñi ngi dund ñun li nga xamante mooy ziar bi en direct fi yeneen seen yi nga xamante ni ba ci seen YouTube bu Mafatihul Bichri waaye yooyu yëpp sëñ Mamour ngeen def ci liggéey bu am solo boo xamante ni kenn ku nekk xam na ne wàccaay la ndax lu mel ni ku fi ñëw rek euh, balaa ñuy def dara yéen ñi nga xamante ni yéen yor wàllu communication seen liggéey fës na ci bu baax a baax a baax noo leen ko waajale ba mu agsi fii ba tey ku fi ñëw sa xol mana a sedd ci wàccaay yi nga xamante ne amoon ngeen ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara ah, jërëjëf Serigne Modou Faye di ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara ak di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi teewlu ci site di tuba Vision. ak mboolem ñi nga xam ne collaborante ak ànd ngeen ak ñoom ci liggéey bi ngir ngeen fas yéene yaatal liggéey bi bu at bi yëpp mën koo mën koo seetaan mën cee jëriñoo ngir xamaat kan mooy Serigne Touba Khadim Rasoul euh, li nga laaj ci ziar bi mooy ñun dañuy ay ndongo yoo xam ne ndongo yu yu xeebu sax yoo xam ne euh, dañoo jóg taxaw fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci lan ci xasee yi xasee xasaayidu Seexul Xadim yi. Mm-hmm. Mafaatihul Bichri nag yàggut ndax fukki at ak ñeent ci ren. ci kanamu Serigne Saliou Mbacke lañ ko sase woon dafa dem di ko jàngal xasida Seexul Xadim bi di ko di di ko di ko fa jàngal ba yàlla dogal tey euh, Cheikh Mouhamadul xaa mi nga xam ne moo fi Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu aw ci ndigalam euh, soññi ñu ci xasida yi tey ba mu toogee ba léegi ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul yegseeguñ fi yeeslu euh, mu amoon ziar boo xamante ni dañ koy waajal di ko defal xalifa général de sëriñ Serigne Mountakha di kenn ci ñun. ndax at mu nekk ci waxtu wi ci kor yi dañ fa daan dem di ko ziara di ko jàngal xasida yi mu ci daan am mbégte lool euh, ba yàlla dogal nag bu ñu waxtaanee sunu biir ñu xamal ne ah ziara ba ñu daan defal Seexul Xadim euh, moom la indi ci ziar bi muy ziaru kore gi muy nekk ziar boo xam ne ziar général la doom daal di ma faat bis yëpp dañ ciy ànd fu waay nekk ci fu membre nekk ci daara ji muy Sénégal muy bitim réew da ngay daal di teew ñu àndandoo laxasaayu dem yeesu ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir mm-hmm. euh, waaye jëbal ko suñu hadiya loolu mooy sababu jotaay bi waaw ci biir loolu nag <clears throat> am na wàccaay euh, diir bi nag gàtt na lool ndax bi fukki fan feetu kor yi ci lañ ci lañ ñu wax ñu ne ah ziar bañ daan defal sëriñ Mountakha moom mooy ziar bi nga xam ne moom mooy ziar général bi nga xam ne moom daanañ ko defal euh, daanañ ko defal xalif moom la ñuy def moom mooy ziar moom ziar bañ daan defal sëriñ Mountakha muy kor gi moom lañuy def muy si ziar général mu doon wàccaay wax ne xawoon naa gàtt lool waaye ci tawfeexu sëriñ bi yàlla defal nañu tawféex ba fi ma waxee ni lu àdduna sëpp xam nañu ne daara ma faalu bisri eh, jóg nañ ngir fas yéene siyaare ji Seexul Xadim loolu dañ ko def rek mooy yiw la woo xamante ni danañ woote képp koo xamante ni eh, ba nga ànd ak ñun yiw woowu rek ñu la ci woo te gis nañ ñun ñëpp wuy si nañ woote boobu ñëpp jóge nañ ci daar ja àndandoo ñëw fii ci kër Mountakha fii ci Daaru Tansil siyaare Seexul Seexu Xadim Seex Mamadou Mountakha Mbacke Basir allah sëñ Mamour say biir wax dégg nañ ci ne ziar bi tey jii fépp foo ab membre nekk wala ku dul membre wala mbokk taal bi rek nekk ci réew mi ak ci bitim réew am ziar bi egg na ci ci yow waaye ci diir bu gàtt nag ñu jàpp ci ziar bi maanaam communication joué ci rôle bu am solo naka ngeen ko waajalee ba tey ziar bi daj fépp fenn nekk ci àdduna bi waaw kenn ku ne xam ne nekk nañ ci jamono boo xam ne jamono communication la ndax wax naa ko waxati ko mooy Euh, ñi nga xam ne ñu yëngu ci ay caaxaan euh, fexe nañ ba occuper espace communication boobu muy ci réseaux sociaux yi ak ak euh, xeet yi demee noonu rek fexe nañ ba occuper wooloon waaye suñuy message yu ëpp danañ ko faral di jaarale ci côté boobu danañ ko jaarale ci côté boobu ba tax daara ji moom waxtu jugee rek ngir woote day yomb ci day yomb ñun ndax xam nañ ne li ëpp ci nit ñi lu jëm ci wàllu internet moom soxal nañ leen lool saa suñu xëy rek daañu ci dem daañu ci dem moo tax daanaka ñun suñu wootee lu ëpp ci wet googu la moo tax duñ am benn jafe-jafe ngir ñu wuy suñu wala lu ñu def rek ñu xamal ko nit duñ ci am benn jafe-jafe ba tax na loolu euh, mooy yi xam ne ne tamit euh, daara yi teg na ko muy site ubbi benn site internet boo xam ne dama fàttali site point net la ak plateforme ba mu àndal muy ci wàllu application beeg ak rajo yi waaye loolu doyut ndax comme li ma wax léegi rek communication du day euh, ku mel ne Touba suñu partenaire la loolu démb la woon tey doog a ñëw ku mel ne ngi profité ci ziar bu baax a baax ak yéen ñi sëñ Modou Faye liggéey bu rafet bi ci def te yemale leen rek ma ni mbooloo moo xam jug ngeen ngir liggéey Serigne Touba jug ngeen teg ko loxo maanaam lii ngeen di def ni dañ ko tasaare jëmale ci àdduna te loolu loolu rek moom mooy euh, loolu rek mooy mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba moom kenn ku ne fa man ak na nga rek nangay ngay jàppee mu fekk si la foofa loolu mooy moom mooy loolu mooy liggéeyal Seexul Xadim euh, ku mel ne Touba Vision sunu partenaire la te it wax dëgg yàlla jàmbaar lañ lool te waan liggéey boobu moo tax ñu jug sol sunu daal dem ànd ak ñoom ci liggéey boobu ñu defee ko noona ñu defee ko noona ba tax na it xam naa ne bañ commencé ba léegi euh, yàggut waaye fi mu ne nii moom mi ngi tas àdduna ndax Euh, ñu bëree bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi koy ñi ngi koy teewal fi mu ni nii en direct ci Touba Vision ak ci Mafarin Bichri bi ak ci ci Murit euh, euh, Sunu Info moom itam ñi ngi koy ñi ngi koy jàllale ak yeneen jomm ñeneen ñoo xamante ni danañ fi ñëw incha allah ngir ànd ak ñun boobu kon ci wàllu communication mesure boobu lañ ci jëloon ngir yaatal gi ndax xam nañ ne li ëpp ci murit yi nekkuñ ci dëkk bi nekkuñu Touba fii ba Sénégal yëpp ak bitim réew li ëpp sax ci bitim surtout bi dañuy bëgg ñoom lu xew Touba rek lu xew Touba rek dañuy daay ko bëgg a umpalee ba tax na ñoom dañ leen bàyyi xel bu baax a baax ci suñu liggéey bi dañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax fu daara ji toll rek danañ leen xamal ne daara ji fii la tool ñu ak ñoom ñooy àndoon di ko di ko di ko dundandoo kon ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziara comme li ma mujjee wax rek mbir mi moom du lenn lu dul siyaare si sëb sëb sëriñ lool lool loolu képp la lan lañu am mooy suñu xàddiyee suñuy poos ak li ñu xam ne Sëriñ Tuubaa tërale leen muy xasida yi ñu ñëw ànd ci jàng ko jàngal ko seex Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax sëñ Mountakha moom kenn ku ne xam na ni mu mel ci xasida yi kenn ku ne xam na loolu fi ne loolu nekkatul lu ñuy laam-laamee ku ko bëgg ku bëgg a bëgg rek leen nga koy bëggalee muy xasida yi moo tax ñun euh, waajal nañ ko bu baax ci ay kuréel yu kuréel yu kuréel yu kuréel yoo xam ne kuréel yu wute lay doon ndax fi muy wax xam naa ne kuréelu Thiès ñoom ñooy jàng kuréelu Njaareem danañ jàng euh, Dakar ñetti kuréel lañ fa incha allah danañ jàng boo ko booleeg juróomi kuréel yi ñoo nekk Touba muy tout tànk yeeg ñëpp kenn ku ne jox nañ la sawara ci bis bi ngir ñu fas yéene àndandoo ñëpp daara yëpp sel yëpp liggéey Serigne Touba waa ma kenn ku ne yëg sa bopp yëg sa bopp bu baax a baax a kon dañuy gàttal kàddu yi rek ndax liggéey bi bëri na te mi ñuy xaar ni ngi leen santaat bu baax a baax di sant Serigne euh, Serigne Modou Faye ñu ngi lay sant Serigne Cheikh Gueye ñoom it ñoom ci sunu info ñu leen di sant bu baax baax di leen euh, di leen ñaanal tawfeex di leen ñaanal xéwal yi gën a yokk bu baax a baax a baax baax li ngeen yéene liggéey Serigne Touba ngeen am kattan googu Serigne Touba kattan ngeen ba ngeen ko defee neen ko bee wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf macha allah jërëjëf euh, sëriñ Mamour Diop mbokk yi ngeen dégg kàddu yu matala yooyu nga xamante ni yëkkati na ko bu féete nag ci matière bi nga xamante ni mooy matière de communication kenn ku nekk xam na ne jamono jii dañoo toll ci jamonoy communication te ziar bi ku fi ñëw rek gis nga ne lii nga xamante ni euh, mooy communication ñoom ñi ci féete maanaam euh, bay nañ ci seen waar bu baax a wax incha allah rabbi nii rek lañ koy wéyee lépp loo xamante ni am na fi Touba Vision war koo jël leen ko jëld dinañ leen ko wan ba képp koo xamante ni nekkoo fi rek sa xol mën a sedd nga mën a rafetlu li nga xamante mooy jotaay kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Rabbi